ñetteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi taalibe yi daan nañu bokk di ñaan ñaan amoon na solo ci dundu doomi yàlla yi ci jamonoy kolore gu jëkk gi yonent yàlla daawuda wax na ci saboor ne man dinaa ñaan yàlla te yàlla dina mu musal ngoon suba ak diggu bëccëg dinaa ñaan dinaa yuuxu ci kaw te yàlla dina dégg sama baat saboor saar juróom fukk ak juróom aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett ñaan amoon na solo itam ci dund yéesu yéesu ñaan na baayam mu wommat ko te dimbali ko ci lépp li mu wax ak lépp li mu def ci kaw suuf yeesu mi yàlla doom ji dafa daan wax ak baayam saa yu nekk kon taalibe yi ñoo gën a soxla di ñaan baay bi saa yu nekk dañuy ñaan kenn ku nekk yow ak sa bopp di bokk di ñaan ci sunuy kër ak a ñaan ci sunuy mbooloo léegi ma laaj leen juróom naka la taalibe yeesu wara a ñaane yàlla war nañu ñaan yàlla saa yu nekk war nañu ñaan kenn ku nekk ak di bokk di ñaan ci sunuy kër aka ñaan ci sunuy mbooloo